boobu dañ koy commencé. dañ koy yi ñoo ngi leen di nuyu di am mbégte ak contentement bu mag a mag ñëwal nii tey mbokk yi di leen présenter un grand combat. combat bi war a dox ci diggante Kéweul ak ki nga xamante ni moom mooy Tidiane Faye bu Lansar Tidiane Faye maa ngi lay nuyu. waaw ñu lay ziar bu baax di ziar waa ahlu làmb yëpp di ñaanal ñëpp jàmm. di nuyu sama rak kéwél di nuyu promoteur di nuyu ñëpp ñu fekk si laamu ji. Tidiane Faye tey Assane Ndiaye production dafa décroché combat bi ngir bëggal amateur ak supporters yi lan lañ mën a xaar ci diggante Tidiane Faye ak kéwél. waaw laamu ju neex rek ñu ngi waaj bu baax ànd ak suñuy mbokk waaw. combat bi naka nga ci nar a ñëwee ndax xale bii ngay dajeel kii xale la xool nga ko bu baax. waaw loolu yàgg nañ ma ko wax si man moom wax dëgg yàlla. waaw lan lan la yàgg a wax. non xoolal rek samay combat amul benn combat bu ma bu rek ñu tolloo. Ah. déedéet. lan nga ko nar a indil combat bi di nga xeex. ñu ngi waaj daal ñu ngi waaj lépp rek ñu ngi waaj lépp yàlla moo mën te moom moo am te moom la ñuy ñaan. Keweul xam nga ki ngay bëreel na professeur de Lansar. waaw on sibilahi saytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi sant yàlla julli ci yonent bi sant sama ñaari waajur di ñaanal sama yaay bu yàgg fi lool te wér di ñaanal sama papa fa mu ne taxal ko fi mu jógee waaw di ñaan wér di ñaanal Tidiane Faye wér waaw. dama ne la ndax xam nga combat bi nga jël ndax xam nga ci ngay bëree l'expérience c'est la différence. non Tidiane xam naa ko baax nee nañu mooy le professeur Lamsar léegi man nee naa leen ku mën a bëree moo neex a bëreel looloo tax ma sawar ci bëreeg moom waaw mais gannaaw bu ma jox cër la waaw mais bu suuru lam jaan ak ku mën sa morom duma. combat bi ni koy jël tàggoo nga. non tàggoo naa rek comme fi ma yegg di jaar laa jaar rek waaw. comme fan. ñi taxaw samay combat fi ñu daa jaar foofu laa jaar jël combat. lan moo tax nga jël combat bi lu tax nga dama xam ne champion la. te ñëpp bak nañ ne dafa mën a bëre. waaw mën a bëre boobu nag man dafa am lu ma yor loo xam ne waneegu ma ko léegi comme noonu ni Tidiane dafa mën a bëre loo tax ma jël. lan lañ mën a xaar ci diggante Keweul ak Tidiane Faye. non dina neex. dina neex bu suur ba la ñuy xam man maay kan ci wàllu bëre parce que dafa am bëre bu ne ci man génneegu ma ko te nee nañu mooy le professeur ci moom laa ko boo wane mbokk yi beneen combat ma ngi nii caatu montagne moom tamit adversaire am ñëwul boobu tamit a Ndiaye bool production moom moo ko tëgg lan ngay wax axlu lam auzu billah bismillah inna wa yàlla jërëjëf Serigne Touba ginnaaw ba ñu sant yàlla julli seen bi di sant ñaari waajur di sant mbooloo bu fi nekk yëpp di leen gërëm sama adversaire nag amul lu ma koy wax ndax nekku fi du ma ko jëw damay bàyyi njaaxaaroo lu ma koy wax ma wax ko di woo waa nag Bawol di woo waa Casamance conke sin fu ma jógee di woo waa Ziguinchor bu baax a baax a baax a baax a baax di woo waa Fass di nuyu sama perkat yu baax di nuyu sama per tafaaga yi di nuyu sooyee sama entraîneur maa ngi bëggee waa Fass yëpp waa di nuyu sama waa koñ waa montagne aslem di woo sama booy mafia bi péage Dóoru di woo waa Rayba di woo Aslem di woo waa Sirim Sap Fass Gueule Tapée Colobane ñëpp maa ngi woo si combat bi comme moom mooy teg soog moom incha allah ñaan teg ko si kon. jërëjëf mbokk yi Bassirou Ka mi ngi noonu. da ngay joos lii cosaan la Mansour joos cosaan la waaw waaw. tey sama xel dem na ci le professeur de Lansar waaw waaw. nekk ceeg Sampaye production. cey cey waaw waaw.